garage Lat Dior nekk ab bërëb bu ñuy faral di dégg lool ci seen organisation gu am solo gi ñu fay amal waaye itam ci ab liggéey gu jaar yoon. ñu amaloon fa ab waxtaan ak seen njiitu garage bi di président ñu déglu leen ci micro Leral TV. turu Lat Dior nag moom yàgg na waaye li ci am solo daal mooy ab camp moo fi newoon biñ ko dindee lañ fi def gaaru ceer bon tudde ko gaaru ceer Lat Dior mu dajale oto yi daw Wakaam Grand Dakar. Colobane leen Thiaroye ak fi banlieue bi ne ci yëpp nekk ci Dakar yëpp daal oto yi fii la ñëw di taxaw. xam nga léegi nag dafa am euh, tuuti changement parce que tataay yi ni muy doxee ak ni car rapide ak ak ni Ndiaga Ndiaye yi doxee bokkul boo Ndiaga Ndiaye ñun moom lañ gere oto bu ñëwee taxaw day yëpp euh, destination fa mu jëm bu dee Wakaam la jëm bu dee école Dior la jëm parcelle yëpp. bu ñëwee day inscrire yëpp dem loolu ñuy inscrire nag loolu ci du réussite jooju ci génne moo nekk caisse sociale ci la ñuy jàppale chauffeur ku ñu la ciy jàppale ci ay dépenses ñi feebar ñu leen ciy jàppale ci ay ordonnances ñu ne ci ay jafe-jafe ñu leen ciy jàppale loolu mooy lépp luñ fi jëlee daal social lañ koy delloowaat. waa liggéey bi dañ ñëpp fekk si nañ ci parce que dëgg yàlla jaar na yoon amu benn tendance liggéey bi ñëpp ànd nañ ci. amul kenn kuy xëccu jëm fenaan waaw membre de bureau bi euh, am na président am na secrétaire général am na trésorier am na commissaire aux comptes waaw te lépp lu ñuy parce que fii ñu nekk nii nag dem nañ ba ut fi sax ay terrain def ko sociale waaw ah, joxe naa cent vingt parcelles fii ci waaw suñu deux cent francs yi ñuy am fexe naa ba économiser ko ba jënd ba am naa trois hectares. Euh, nekk euh, depuis 2010 waaw mais nag maa nekkoon ci bureau bi commissaire aux comptes depuis 2000 naa nekk naa commissaire aux comptes dix ans nekk président. non ñun mosuñu am problème fii moom yàlla dogal na mosuñu problème parce que fii lu bari dañ ko fii bañ buñ la gisoon ngay taxawaalu def ay vingt et vingt sax dañ lay woon la kaay. duggal ci oto yi dem wala nga genn garage bi du fi sàcc amul agresseur lu fi reer ñu andi ko fii su borom ñëwee ñu feeñ amuñu benn problème amuñu problème mosuñu am problème police ñu am problème ak gendarmerie parce que benn problème du fi am dañ ko gérer normal ñu déedéet déet loolu génne ci benn côté parce que xam nañ ñi ñu nekkal jox nañ leen jox nañ leen jox nañ leen seen gëdd ñoom it delloo nañ nag ko parce que nit parce que nit ki bu xamee boppam rek day xam li muy nekk mooy lan. waaw liñ bëgg kay mooy état bi fi mu ne nii jàpp lañ ci ndox parce que ndox gëj nañ ko am bon robinet dafa coupé. bon toilette yi may jënd ndox bés bu ne dinaa jënd ay deux cent bidons ndox amuñu ndox amuñu courant et bu njëkk dara bi dafa dafa fermé woon ba nekk quatre portes bu ñu demee da vingt trois heures ñu tëj porte waaw moom sécurité. buñ demee ba ba quatre heures de matin ñu di ñu tijji porte yi mais léegi loolu amatul yooyu yëpp daanu yooyu nag buñ sañoon état dimbaliñ ci mu delluwaat place am mel na melaatoon waaw amul làmp guddi mais xañ nañ ñun créé nañ fi ay làmp yoo xam ni nit ñi mën nañ fi nekk ba vingt trois heures te du am benn problème parce que ut nañu ay gardien itam bàyyi fi ñoo leen di ñoo leen di fay suñu printe ti li ñuy amakas néew. xanaa transporteurs yi daal dugal seen loxo ci gaaru ceer bi ak état bi ñu jàppalañ ci te xam ne ay nit ñi fi nekk ñëpp a yem ñun ñëpp bokk Sénégal kenn ku ci ne la nga ci mën a def ci lu baax nga ñëw def ko parce que ñun bon dañ fi nekk rek di leen sonal mais du dara luñ ci am waaw loolu nag moom war nañ ci fekk si jàppale ñu ba garage bi am sécurité bu baax a baax kenn mosu fee ñëw di wax kenn ñun ànduñu kenn kenn du fi ñëw duñ dem ci kenn ñoo ngi toog daal di xaar yàlla mu nekkoon ay kàddu yu solo ñu ñu fa jële waaye itam ñu mën a jàpp ci ay kàddoom muy bile garage ñaari pàcc yëpp ñu ngi dox muy paccu tata yi ak ñii di njage njaay yi waaye itam ñu mën a jàpp ne ay jafe-jafe moom duñu fa mucc ndaxte manqué nañ lii di ndox ak courant ñuy ñaan nguur gi mu jàppale leen ci bu baax a baax